oui les amis maintenant comme ni ngeen seetaanee vidéo du début à la fin noonu la ñuy defee li nga xamante ne mooy procédure d'inscription bi si concours aux et forêts bi boo xoolee dem nañ suñ email mais gisaguñ message peut être envoyé ñu ko mais l'essentiel essentiel que mooy am nañ suñ compte am nañ suñ compte def nañ information personnelle yëpp léegi mën nañ connecté suñ compte facilement comme ni ngeen seetaanee vidéo du début à la fin boo leen ko defee inscrire ngeen li nga xamante ne mooy concours aux et forêts léegi boo leen bëggee connecté waat si li nga xamante ne mooy compte c'est facile comme li ma leen waxoon numéro de base bi da ngeen ko war a jàpp da ko war a boo leen ko mënul parcuriser copier leen ko ngeen am foo leen ko bind boo leen ko mënul copier capturer leen ko comme ni ma ko defee ci vidéo bi capturer naa ko copier naa ko aussi léegi da ngay ñëwaat nga dugg ci li nga xamante ne mooy site bi gis nga boo bindee d decp pc euh, point sn wala nga bind hww point la même chose boo defee loolu noonu rek automatiquement da am accès ci site bi gis nga léegi boo amaatee nii accès ci site bi léegi yow comme que am nga sa compte xam nga c'est pas la peine euh, ngay nekk di di di di di di di defaat inscription bi quoi c'est pas la peine léegi lan lan moo la yitteel yow jamono ji am nga sa compte au pare léegi booy connecté c'est facile da ngay ñëw nii ba si site bi nii comme ni ngeen ko gisee léegi da ngay wàcc ba fii mu la defal euh, connectez-vous xaar gis nga boo leen xoolee créer un compte connectez-vous boo leen xoolee bu may njëkk a ñëw dama puusoon di dem inscription mais boo leen xoolee. jamono jii loolu yitteeluñ léegi fii ngay ñëw nga def connectez-vous gis nga connectez-vous ngay cliquer boo cliquer connectez-vous nga patiente gis nga fii la lay indi bu la lee fii nii léegi yow lan ngay def da ngay ñëw fii nii boo ñëwee quittez-vous dang you cliquer nga def candidat candidat ngay sélectionné do sélectionner établissement Vous avez candidat nga def chargement numéro de base numéro bima len don wax numéro bu am solo il faut ngeen japp ko wala bind ko wala capturer ko numéro bi ngay parcourir nga wut comme comme copier ko dañuy longtemps bu ko coller ko ci gis nga ñu coller numéro désolé attendez waaw ko collé nañ ko ci suñ numéro de base moo nekk noonu léegi def nañ numéro de base bi léegi suñ mot de passe moom la ñuy ñëw def mot de passe tamit wanoon naa leen ko mot de passe koy def benn yoon confirmé waat ko mu nekk sa mot de passe personnel mot de passe bi nag mooy tax nga mën a am accès sa compte léegi da ñëw dugal sa mot de passe gis nga da ngay ñëw nga dugal sa mot de passe comme ça léegi boo dugalee sa mot de passe ba pare léegi euh, lan ngay def dangay ñëw fii cliquer connexion boo cliquer connexion automatiquement gis ngeen am nañ accès si suñu euh, li nga xamante ni mooy suñu compte euh, bi nga xamante ni moom la gars yi wax ni fi lañ war a mën a jaar le gis ngeen ni euh, moo moo nekk ni concours 2022 gis nga BTS épreuve et cetera gis nga diplôme obtenu BFM e gis nga épreuve optionnelle attitude gis nga état orient gis nga suñ provenance Thiès numéro tuteur bi quoi numéro tuteur bi moo nekk nii gis nga léegi dama koy waa léegi gis nga filière yi doo leen ko choisir suñ numéro bi moo nekkaat nii gis nga suñ numéro bi moo nekkaat nii numéro bi mu leen wax moo nekk numéro de base bi dañ la koy defal mu rëy pour nga parkeriser ko quoi léegi ñun suñ kii moo nekk nii suñ numéro téléphone gis nga suñu information personnel moo nekk nii nii ngay defee ba am sa compte quoi gis nga nii la léegi pour nga def paiement bi c'est facile da ngay ñëw nii gis nga fi la ñëw nii fii nag fii d' inscription la boo ci cliquer yi da ngay télécharger fichier sa fichier d' inscription mën nga ko télécharger fii bu ko defee nga denc ko xam nga léegi pour ngeen def payment bi da ngay ñëw fii paiement paiement d' inscription boo fi cliquer rek gis nga boo cliquer ci payment d' inscription bi nga xaar gis nga boo patienté léegi mu ñëw. gis nga léegi bu ñëwee rek gis nga de euh, DCPS euh, gis nga 600 numéro bi gis nga montant à payer mille francs gis nga fii da ngay choisir sa opérateur opérateur yu baree bare fi nekk gis nga gis nga opérateur yu baree bare moo fi nekk mais ñun comme que ay sénégalais lañ souvent la ñuy utiliser Orange Money Wave Free Money

sa prénom ak nom légui moom ngay def wan nañ leen inscription bi légui dañ leen wan procédure de paiement bi def légui def nañ suñ prénom légui la lañuy def euh, valider gis nga léegi dañuy valider ñu xaar gis nga procédure du paiement léegi dañuy valider bu ko defee ñu xaar léegi bu ko defee dañuy xaar bu ko defee validation bi ñëw gis paiement le paiement euh, est en cours de traitement cher client merci de taper dièse 144 dièse pour confirmer le paiement ñu def continuer gis validation en attente gis en attente de la validation du paiement Les dañuy génn xam nga buñ génnee ñu ñëw suñ téléphone buñ ñëwee un téléphone ñu def dièse 144 Diez bu fekkee Orange Money ngay utiliser Wave bi tamit xaw ma nan lay parce que benn méthode de paiement rek laa mën a utiliser gis nga la la wax vous allez faire un achat de 5000 francs entrez code euh, secret pour valider waaw léegi da ngay dugal fii sa code secret def nañ suñ code secret léegi dañuy def envoyer. gis nga vous allez recevoir les détails de de l'opération par SMS merci de patienter vous pouvez faire dinañ opération par SMS les bu ñëwee ci SMS vous pouvez xool gis nga envoyé message votre opération de 5000 francs a été réglée par Orange Money frais euh, zéro franc etc. Définitivement def nañ li nga xamante ni euh, paiement bi léegi dañu ci site bi ñu ñëw xool gis nga site bi moo ne paiement euh, validé gis nga faire une félicitation votre paiement a été effectué avec succès ñu def ok gis nga base gis nga mu defal ñu base fixe gis nga léegi def nañ suñ paiement gis nga noonu la ñuy defee li nga xamante ni moom mooy paiement wu euh, kii bi paiement wu paiement wu concours bi léegi dañuy connecté waat suñ compte dañuy defaat connexion def nañ paiement bi léegi dañuy defaat li nga xamante ni mooy connexion connecté euh, compte bu ko defee ñu wan leen euh, léegi dañuy defaat li nga xamante ni mooy connexion bu ko defee ñu wan leen ngeen xool

convocation etc. nga et gis nga def nañ li nga suñu paiement j'espère que comprendre ngeen fi la vidéo bi ñu leen di bu baax ñi nga ni doon suivre vidéo bi souhaiter bonne chance ok aussi du désolé nañ leen fàtte wax maanaam convocation bi gis ngeen convocation bi fii nii boo leen xoolee convocation bi da ngeen koy bës bu ko defee ngeen téléchargé ko boo leen koy téléchargé convocation bi ko war a yóbbaale quoi parce que convocation boobu noonu moom dañ leen koy laaj xam nga léegi ak sa pièce booy dem defi concours bi quoi da ngeen koy bës ngeen téléchargé ko lii lañ amoon si liñ leen si yokkal ñu leen di jaajëfal bu baax